yenn nomination yi ñu ngi koy ñu ngi koy critiquer waaw yenn nomination ñu ngi koy critiquer xam nga appui c'est humain c'est normal xam nga kuy critiquer rek de deux choses l'une soit da nga fi ñu ko teg wala da bëggoon ñu teg la fa <laughs> parce que man noonu laa ko jàppee mm-hmm. parce que man euh, nit du wax man yow bu ñu la faloon xeeb la du yomb voilà xeeb sa parcours <laughs> euh, mais sauf que damay jàpp ni peut-être que fañ ma foog naa nangu ni peut-être am na ku fa mën noonu

bu fekkee noonu lañ doon tàmmee di gis nañ lañ leen gisee aujourd'hui est-ce que même attitude boobu lañ amoon ils étaient dans un combat. Mm -hmm. extrêmement farouche avec quelqu'un ouais. d'abord nit muy Macky Sall. il fallait utiliser les armes et il fallait aussi ñu ak avec un régime. Mm-hmm. et ils ont trouvé que le style de combat des policiers yi fi nekkoon c' était style standard c' était style old school ñoom ñu ñëwee fekk des matériaux et des outils yu bees. Mm-hmm. yu mën a toucher extrêmement fu sori sori sans que ñu sonn ñu indi benn politique bu bees exploiter les réseaux sociaux exploiter ko ba le président Macky Sall génnoon. de la magie du fric. fera face à la magie des clics. Mm-hmm. te tey la magie